ndaw yónni ko dama kontu Sall ni ko boo demee ne ko lu mu def kenn mu def maam ca maam bàyyi maam ma kodd ni ko ngeen nit mu ne ko Sëriñ Tuubaa nee noo def kenn mu def la mu ne ko kon nag de ni ma koy def mooy téye ko ànd ak moom tuddee ko doom ma kodd bàyyam tuddee na sëñ Ibrahima doom maam moo tax Ousmane Mbacké mii du doomu sëñ Cheikh day defaat moom ma ne ko ak taalibe fi nga ko doon ne mooy diggante ma kodd Cerno Ibrahima dégg nga suñ tubaab bu ñu cat boobu cat yi dañoo soxla waaye lu waay def cano rek suñ bamba rek macha allah dox na fekk suñ tubaab xuma xanaa xamul Cheikh Fall eh, gër mi garal loolu Cheikh yi leen la boole gër mi yëpp Cheikh yi leen tuubloo gër mi yëpp jox leen ay bopp ñu béy muy ko suñ tubaab moo tax Fada looloo waay mën a wax Serigne Touba képp a tëdd gis nga lu waroon moom balaa kenn jëriñ ñaan kenn bi ñu xëy na jëndi rax ak biir gouverneur bu ko sëñ Bamba jënd woon kenn taw rek bu ngeen càmbaraxee lu leen tëb rek waaye li ngeen ci Conakry ak Ndakaaru boo julee ci gaal gi tooñ mu boo juloo tooñ yàlla sa borom mu jërëm yaram sànni ci ndox bi cëppelu nit ñi wilaaya di bàcc ndox doo nit ñi mu ne gaal gi ma dugg teg nañ ci fanweeri tonne jiw bi mosuma fanweeri kilomètre nañ ci koo koy ñëwee kaw lay mel rek bàyyi seen xam-xam. asalaamaaleykum wa rahmatullah am na ñu fi jël kàddu ma bëggoon leen a delloo rek ay kàddu yi cant di ko tàmbalee ci moodu Fall moodu Fall wax ci turu waa Sagata yëpp Sagata nag man daa am lu ma boole ak moom Sagata ki ma boole ak moom Alaaji Moustapha Kebe la mooy sama baay ànd ak alaaji Alioune Kebe mu Jóob Jale yal yàlla yërëm ma nekk ndaw nekk seen wet xaj na ba ma gën a nekk xale daan naa fa ànd ak ay équipe bu football booba xaw ma woon Baye Moustapha Kebe na toog na toog nii kaay madame le maire kaay toog fii maaleykum salaam Thiam Thiam Thiam toogal nii toogal toogal aman wak kaay waaw mooy euh, soxna Aram Thiam soxna Aram Diop euh, maire bu Thiamène waaw góor baax na jigéen baax na ñun région Louga dañuy honoré wu am maire je suis un farouche défenseur de la parité Je ñëwaat à ci ci yow jërëjëf euh, sagata euh, football ba ma nekkee école primaire mosoon naa fa ñëw ci activité interclasse benn classe su Daaru Musi bu ñu jumelé woon ak benn classe su Sagata sama correspondant Mbay Caam la woon moo ma bindoon lettre ma tontu ko ba léegi si ni sama xarit la Mbay Caam moom tudde na ma doom yàllaa bañ waaye sama tànki politique ci Sagata ak président Moustapha Kébé la moo tax may wax souvent ne Mbacke kebe dafa sant kebe rek waaye kër ga moom lam fa laa fa am man su ma ñëwee Sagata dem ma kër Mbacke kebe kër sama baay laa dem kër Moustapha Kébé laa dem kon nak Modou Fall yaangi don beug sax jox kaddu gi bu naa waye yow la bëggon nga wax ndax bu mom waxna bataay sama kanam nyono fi bataay tàyyi xew wu nekk ñëw ko fi sama rak la yow tamit sama rak nga sama ndax jarbaatu mbàkke mii nga kon sama jarbaat nga yàlla de dox ba boole ñu ci politique nga nekkoon candidat benn bokk yaakaar commune Sagata bu naa ma mi nekkoon sa tête proportionel yàlla def li gën ñu nangu ko waaye nag ba wuti jotaat waaw bu ti jotaatee daañ gën a laxasaay gën a jaaju gën a organiser gën a taxaw ba liñ bëgg yàlla ñaan yàlla mu defal na ko man li ma découvrir ci yow rek mooy xale bu am jom xale bu bëgg ndam xale bu nangoo sonn te loolu fekk yaa ngi ciy sax yàlla di la dimbale kon nag maa ngi nuy waa Sagata gépp di nuyu soxna Penda Fall moom sama yaay bopp la soxna Penda moom ay buy parti Modou Diagne Fada ay parti waaw moom ma ngoog moom parti moom amu ko Modou Diagne Fada parti ku àndak ak Modou Diagne Fada daal mu ànd ak yow waaw ku àndut ak moom àndut ak yow moom du parti moom Modou Diagne Fada la waaw moom kooku mooy soxna Penda Fall ba koy. Euh, ma koy dugal conseil départemental dama ne Mbàkke na mu joxe kayitam rek mu daal joxe kayitam xamuloon fu ñu koy dugal kon nag euh, suñu yaay la moom ak ñi ngeen àndal ñëpp Touba Diop dëkk ñi dëkk sagata ñëpp rek damay bañ lim genn geer waaw genn geer a ngoog genn geer moom suñu suñu mag la waaw benn guerre moom ku ñu bëgg la waaw yaakaar naa jaaral nañ ko yendu ci garan place sagata yooyu di xuloo ko xeex ba suba ca ba suba ba ca ngoon waaw ngi noonu maa ngi koy nuyu bu baax di leen sant bala may jaal ci sëñ Basiiru ma nuyu Baara lay waaw Baara mii Peres la nekkoon Ndar la dëkk di sama rakk ju baax bàyyi PDS ñëw di ma jàppale campagne bi ñu passé loolu waxu ma ko sax baara ma yoro fay woo ma ne da doon proxibité xawma ma lu mu doon def daal ñëw sa kër nga xamal ko ne ko yow yaa ngi ci man mu woo def seede yu rafet ci yow ne ma jàppal baara responsable bu baax la militant bu baax la kon maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant seede bi laa bëggoon def ci kanam mbooloo mi moo tax bi nga tàggoo léegi bëgg a dem ma ne la toogal di la gërëm yow ak ñi nga àndal ñëpp jógee ndar soxna Ndey Xadi si noonu ak ñi nga àndal ñëpp jógee ndar di gërëm waa conseil consultatif des jeunes sànq dama leen waroon tudd tudduma leen waaye ma Diouf a ngi fi toog booy dem nga yóbbaale ko ci troupe ci kenn bëggul fay président kenn buggul fay di ko gërëm te di ko sant di nuyu nag Bassirou bu Touba moom sama rakk la moom ñun dañoo jàll yore yëf yi ñoom ñu ñëw comme ni bu naam mi rek nekk sama rakk waaye mu nekk nit ku nga xam ne yàlla may na ko xel te yàlla may na koy pexe politique nag ñaar yooyu dañ cee baax am xel ami pexe lu ci baax la nangoo muñ nangoo sonn di rakk ju nga xam ne mën nañ am ci moom yaakaar Tuubaa googu mu nekk ndax xale la te du jaayir te jamono bu toll jot rek am na capacité toog analyser situation jël ay responsabilité ndax loolu tam mooy politique politique moom boo ñemewul jamono jot nga jël say responsabilité jaarul nga ciy dugg soxna si toog sama wet xaw ma nu mu demee caamen waaye bu jëlul ay responsabilité du dégg madame le maire poti boobu da ciy baax léeg nga toog jël say responsabilité yooyu yàlla nag kon Bassirou maa ngi lay gërëm yow ñu nga àndal ñëpp di kontaan sa teewaay tàmbali la du tàmbali ndax maa ngi yow xamante nañ bu yàgg ñëw nga sama kër Dakar ay yoon yoon sama bureau assemblée ma gis la nga mag sama kanam ci biir parti bi ba tay nga nek mukallaf nek kilifa kenn mënul teunk dara ci walu parti allié yi bolé boolewulu ci waaw ku bëgg sam sepp debbu mok da la ci bolé nga debbulé ko bu dul loolu nag bi mëna baña mok wala bu mokkee tamit dana bari suuf te debbu bu mok debbu bu mokul wala sungu su bari suuf mom benn ba amu ci njëriñ kooku nag moom mooy sëñ Basiru kon euh, yàlla yàlla def jàmm li ñuy mébét li ñuy xalaat yépp yàlla sottal ko ma ñëw ci sama sang yi nag sëñ Jili ak sama doom baay ji di cheikhu sëriñ Fàllu di cheikhu sëriñ Touba di am mbégte seen teewaay fii tey bisu lislaam la suñu mbokku shérif a ngi ni toog bisu lislaam la bisu Seydina Mohamed la ndax bisu Sëriñ Tuubaa la bisu borom Daaru Muxti la tey sëtub maam Cheikh Déthié Law Seck teew si na fi doomi sëñ Ahmad Cissé bu Pire teew na fi sëtub sëriñ Massamba Mbàkke teew na fi doomi sëriñ Mourtala teew na fi kon sanq fii tagg nañ fi rasulullah teg fi sëriñ Touba tagg fi borom daar moxti tagg fi Seydi Ababacar Sy donc ndajem islaam la woon kon nag sëriñ bi maa ngi lay gërëm bu baax sama doom bàyyi li nga wax lu am solo la te loolu cofe rek waral ndax man ak yéene ndax man fàttaliku ma lu ma la ma sa defal waaw fàttali bokk ba nga mën a def seede su am solo su réy si nga def baax rek dangaa baax rek te nag nekk kilifa diine waaye teg sa bët ci lépp ndax kilifa diine yi day teg bëtam ci lépp waaw am lu ko xam ne xañ na du ko soxal waye nak bëgg na xam nu mi démé kon ñaan yi nga ñaan yalla nañ ko bokk sëriñ ji sama xarit la Peres pérès lañ euh mu nekk sama sëriñ comme nim ko waxee bu yëngu ci walu mbay mi léeg-léeg ñu dégënté téléphone di wax lu jëm ci lolu yaakaar naa ne bu jaaree daarul moo ci xam ne maa ngi fi dana fi jaar nuyuma te loolu li tax mu koy def moom fi ëpp ay mbokk waaye li tax koy def kóllëre la ak sàmm kóllëre maa ngi koy sant bu baax Mbacke Ball di la gërëm te di la sant kon di leen gërëm di leen sant di sant ñi fi teew ñëpp rek te di leen di leen gërëm kontaan nañu bég nañu bi may jël wax la madame le maire agsi xam naa dama koy jox kàddu mu wax rek bu ci sànnee ay baat rek su ko defee sëriñ bi ñaan jàng yi continuer waaw ndax ñun dañuy dañuy màggal ñun dañuy màggal waaw bokkuñu ak ceddo yi dañuy màggal jërëjëf joxal dafa am jëmm ju baax bu bu ma tontoo maire ba pare ñu jég ñu jégal ko mu dem euh, ceddo yi ñu jégal leen ñu dem waaw yow moom booy bokkoo ci yow bokkoo ci bu ko ñun ñu kon ne waaw moo moo taal jëlaat micro bi ñun ñu jàng eh, madame le maire maa ngi lay bu baax maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi lay ndokkeel aussi maa ndokkeel bu baax gis nga góor baax na jigéen baax ki démb laa dégg benn géwél mu ne benn pëndalub pendalub noonu lañ ko waxee pendalub jigéen fukki tubay xaj na ci yaakaar naa noonu lañ koy waxee de jigéen fukki tubay xaj na ci ñaar fukk sax xaj na ci kee na téeméer euh, te dëgg la kon nag euh, jamono toll na fu nga xam ne jigéen war naa mën a jiiteeb dëkk waaw ndax ab dëkk moom jub rek la ñuy laaj ak am initiative yow na bokk région bi muy région Louga kontaan naa lool ci xamante bi kontaan naa lool ci ñëw bi nga ñëw ndax lii fas kóllëre la daaru ma ñëpp fi am mbokk rawatina na ñuy dëkk njàmbur ndax nag daarul moxti moom wax dëgg yàlla njaamur ko sos waaw soxna Fatou Issa mi nga xam ne moo meññ borom boroom njaambur njaambur dëgg kon yéen ñi dëkk diggante kokkeeg caamee nag caamee nag njaañ kër nguraak jaay jordeeg dëkk yooyu yëpp waaw ma xam nga maam maxtaar nu ba jëm moom daanaka mooy sunu maam nun ñëpp mango ngoog jor de man samay mbok nga waaw mo ngi nonu donc euh mang lay ñaanal dal te di la ndokel waaw te di jàpp coloré gi bu baax di la ñaanal ndam euh, Fatou ñang momu fa nek di doomi Aziz ñang sama rakaju ju baax la jumay tuddu sa tour la effectivement nee ma da ngeen a coalisé woo na ma ba tàgguma ma ngeen ko sampee ma ne ko loolu moom lu baax la man daal koo coaliseel te nekkul opposition rek baax na waaw li may bañ daal mooy làng ak gaaya waaw waaye boo làngee feneen moom te fi nga làng nekk ci biir làng gi rek baax na déet nit moom lu mu nekk da cee nekk lu mu nekkul bu mu ca nekk waaw kon euh, bis bu nekk mu tudd ma la maa ko koy gën a dénk Euh, di la wax ne tamit genn guerre mais kee yàgg nañu lool yàgg nañu lool lool lool alaaji Moustapha Kee mu ma tudd léegi moo nu boole waaw ci la ñu xamante te boobaak léegi tamit foo ko Moustapha Kee ba rek la la nekk su ma waar wee mu waar wi su ma PDC mu PDS su ma yeesalee mu yeesal yeesal su ma benn bokk yaakaar mu benn bokk yaakaar waaw ah, jaax na yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla defal ñu jàmm aram kontaan naa lool euh, yàlla na yàlla kontaan kon nag euh, sëriñ bi joxe leen ñaan ko defee nag ñu yeewi ñi nga xam ne yëpp la ñoom yitte yu ñuy dox ñun ñi bëgg a màggal nag noonu ñu daal di continuer sunu màggal waaw. bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal. jàpp leen ni Ndiaye Pro barab bii di barab bu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route Belel jàkkaarloog boulangerie Kayndé Fatma woote leen gaaw si bu liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc